organisation mondiale bi nga xamante ne tey moo ŋànk lépp luy yëngatu ci tourisme ci àdduna da koy célébrer chaque année tey nag ñu ñëwoon fii ci Somone ñëwoon fii ci Guéréo ñëwoon fii ci caafura ñëwoon fii nga xamante ne tey ñoom ñu ngi dund li nga xamante ne tey mooy sujet bi nga xamante ne mooy développement rural ruralité tey fii ñu ñëw taxaw yéen seen bopp constaté ngeen ne am na fi am na développement du tourisme bi nga xamante ne ay sénégalais ñoo xam ne yu jàmbaare ñoo fi nekk tey téye ko boo gisee tey li fiy drainer si monde da nga naan tey saison bi xaj na tey la ubbi mais dafa jàpp ne rek ci xarañte ñi fi nekk la ci seen bëgg tourisme ñi fi nekk la donc tey loolu mooy li nga xamante ne tey loolu lañ ñëwoon marqué ci fii tey ci Guéréo euh, Guéréo bu ñu paree ci loolu ñu ngi waajal relance bi comme ni ñu ko ministre joxe ay recommandations. nee na ñu jublu ci léegi léegi commencé xalaat ci donc am nañ ay plan d'action yoo xamante ne dañu accompagner acteurs yi ndax jox nañu 354 milliards pour que bépp acteur bi nga xam même ki nekk nekk ci suuf na jariñu ci askan ci ci aide boobu ndax loolu la Macky Sall bëgg donc euh, million donc loolu aussi vraiment ñu ngi ci jublu bu baax a baax te bëgg nañ ñëpp jot ci am ci seen wàll bu loolu weesu itam yaa 50 milliards yi nga xamante ne dans le cadre de l'investissement et dans le cadre de l'accompagnement pour qu'on crée des services touristiques loolu yëpp ministre préparé nañ ñu donc ci acteurs yi la des ñu organiser wu formaliser wu ba nga xamante ne kenn ku ne di nga tegu ci yoon nga war a ñi war am agrément touristique am ko ñi nga xamante ne dañu war am agence de voyage am ko ñëpp lépp tegu ci yoon donc ñun ci loolu daal fan yi la ñuy pour que ñëpp tegu ci yoon mais di sant ak gërëm aussi le président de la république parce que bu dul woon moom tey li nga xamante ne nekk na tey du noo mën a nekk ministre bi jàpp ci bu baax a baax uti ci xàjj ak seen ñëpp la boole amul ku mag amul ku ndaw ñëpp la boole def leen ñuy benn te loolu ñu rafetlu ko musul am ci tourisme kon Alioune Sarr ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax. jafe yi nag bari na comme ni ñu ko waxee boo xoolee tey ay am na ay perte emploi am na ñi nga xamante ne tey ñi nga xamante dañ daan rabitaay structure hôtelière yi. tey mënatuñoo jaay yàpp mënatuñoo jaay jën mënatuñoo jaay dara parce que Covid bi moo tax ndax recevoir tuñu benn client loolu nag ñooñu ci askan wi ci ñun la ñu bokk ba nga xamante ne santir nañ ko bu baax a baax a baax moo tax jigéen ñi góor ñi ñëpp ñu ngi leen di organiser pour que vraiment relance bi mu nekk relance bu taxaw parce que yàlla dogal na comme jàppale nañ leen ci ñoom kon tey dinañ am moyen bu ñu déparaté bu saison bu ubbee au mois d' octobre incha allah.